asalaamualeykum mbokki senegaal man la seen xarit seen doomu ndey am Diouf maa dellu dellusiwaat fas yéene jotali leen bataaxal bi nga xam ne jóge na ci sunu candidat Khalifa Ababacar Sall xam ngeen ni tey jii bind na bataaxal boo xam ne jagleel ko sénégalais yi ñu nekk biir Sénégal ak ñi nekk bitim réew ak jagleel ko ñi nga xam ne tamit ay xaritu Sénégal lañu ak àdduna yépp moom Khalifa Ababacar Sall wax ci na ci fas na yéene nag ci kàttanu borom bi doon candidat ci élection élection présidentielle yi ñu jublu te ñu nar koo amal vingt le 24 février 2019 moom xalifa xamal na ñi gannaaw ba nga xamee ni wàccoon na ak république bi maanaam jox ko cër fexe ba lii mu yaakaaroon ni nguur gi da ko def mu nekk procès mu am cër bu mag boo xam ne am na ko ci justice ak système judiciaire bi wante mujj naa xam ni lu ñu bari doon wax ca njëlbeen la ni lii procès politique la moo tax nag mu fas yéene def ci li nga xam ne moom lañ ko woowee wàllu politique ku am seetlu gis ni nguuru Macky Sall bi dafa wañ loxo système judiciaire u Sénégal ngir mu éliminer ay candidature bokk na ci yooyu candidature candidature Khalifa Ababacar Sall ba tax na ba ñu commencé seen procès bi ba tey gis na ñun li nga xam ne CEDEAO wax na ko ci ni ay àq ak yelleefu Khalifa Sall ak ñi mu àndal respecté wuñu ko woon te loolu boroom xam-xam yépp ànd nañu d'accord ci nii koo xam ne yoon dalay topp te say àq ak say yelleef respecté wuñu ko yoon dafa la daal di war a bàyyi wante nguur gi ngoy na ci ñi nga xam ni ñooñu mun nañ def li ko neex pour continuer di jéem a wan sénégalais ni justice sénégalais ngi dox te doxul kon léegi mbokk yi lu olof naan wure ba dem na këng li ci des nag mooy ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay soppewu xalifa Sall ànd ak moom balaa ñu koo jàpp ba keroog ba ñu koy jàpp ba tey jii di tubaab di wax ni laa balle est dans notre camp moom nguur gi da koo fas yéene tëj ci kaso bi wante ñun ca biir kase boobu lañ koo fas yéene fal président de la république du Sénégal lan la def mooy d'abord dañuy fexe ba fu sénégalais ne ñu agsi ba ci yow moo xam ne ci bataaxal la moo xam téléphone la moo xam whatsapp la moo xam facebook la moo xam youtube la indil la liñ naan la ban parole la bonne parole mooy lan tey jii tembe fii Sénégal toll foog ñu teg ci bopp réew mi koo xam ne dafay defaraat institution yi ndax institution yi nërmeelu nañu te kooku foog mu nekk nit ku am vision nit ku am fulla am jom wante surtout nit ku am gëm-gëm te gëm yàlla xam nga ñàkk gëm yàlla weesuwul yow nga dem bokk élection ba gañe nga ne nag doo bokkaate ak keneen élection da nga bëgg yow boo dem élection yow kese nga dem fa ndax ñu fu teel la fal xalifa sàll boo leen seetloo boo leen dégloo ay kàddoom keroog ba muy jaar ci Pape Alé Niang samedi mag 2STV wax na wax ju am solo ngëm moom la jiital ca début bi ngëm ci moom lay doxee nii te ci ngëm la fas yéene deewee incha allah yàlla na yéex kon ñun am nañu poñ bu am solo mooy sénégalais yépp gis nañu ñàmbarte Khalifa Ababacar Sall liñ ko teg ci naqar liñ ko teg ci métit mais loolu yëpp mu muñ ko ngir gëm yàlla wante it ngir fexe ba génne Sénégal fii nga xam ne moo ci guuta gi nga xam ne régime Macky Sall foofu la ko dugal kon ma dellu siwaat di abaat kàddu tubaab yooyu ne laa bal est dans notre camp bu ñu xeeb benn nit bu ñu xeeb ñaari nit bu ñu xeeb bépp moyen boo xam ne am nañu ko pour wasaare kàddu xalifa Ababacar Sall yii nga xam ne rafetal na ko tey fas yéene dox dox bi wax wax bi campagne ko campagnal ko ba fal ko mu nekk suñu prochain président de la république du Sénégal incha allahu rabi en 2019 kon mbokk yi mën nañu ko te it am nañu yaakaar ni moom sunu borom subhanahu wa taala boobu te ñu bëri dañu yaakaar ne mu ngi seetaan mais seetaanul li gën rek lay def te xam nañu ni ah Khalifa Sall tey jii nii wan na ko li nga xam ne moom la ko ñi fi jaaroon wan bañ leen tegee nattu ñu tegoo ko nga xam ne sunu borom moo leen ko teg seetu ci récompense waaye liggéey bi la bëgg àggali liggéey boobu nag ci ñun ñii lay démarrer ña nekk Sénégal ña nekk bitim réew ñu commencé fu waay ne waxtaan ak yow. ba keroog ba su vote ba nga votel kii di Khalifa Ababacar Sall incha allahu rabi kon mbokk yi luy jot jot na nañu jóg sol sunu mbubb sol sunuy dàll dem ci mbokk yi waxtaan ak ñoom ndax nag leur de la victoire approche waaw mbokk yi l'heure de la victoire approche ndax olof dafa ne ku yàgg ci teen baak fekk la fa wala bokk ku muñ muñ te xalifa muñ na ko muñ na ko cinq cent et quelques jours nga def ko ci kaso bi ci loo xam ne ni yëgoo tiinoo ay maanaam complot bu mag boo xam ne dañ koo teg rek ci yow parce que lan da am ay ambition politique muñ na muñal na boppam ndax yàllaa ko ko teg muñal na askanu Sénégal ndax bëgg na génne Sénégal ci tolof tolof yi mu nekk message bi nag nañu ko partager lu ñu mën fu nit nekk nañ na ko jugal jug jot na ndax nag ci kàttanu borom bi incha allah am nañ ñu yaakaar ci ndam bi te ndam bi dina ñëw incha allah la victoire approche incha allahu rabbi wante nag yàlla yàlla bay sa tool li ci des moom xalifa dox na ko ba noppi la muy de ca kasa boobu noonu mooy dox bi nga xam ne moom moo doon wàll waree fam li ci des nag ci ñun la lii laa bëggoon tey man Amath Diouf fii ci Houston Texas parce que yéen ñi xarale yi nga xam ne tey kenn mënu koo bañ a utiliser waxtaan ak yéen te semaine bu nekk danaa am loo xam ne aussi message lu mu leen di envoyé kon nañu pare fii ci Amérique ñu ni taxawal suñu kuréel bu mu dëgër ngir fas yéene far euh, président Khalifa Ababacar Sall waa Europe defee noonu waa Afrique defee noonu waa Sénégal nag ñoom ñooy ndey mbili gi bi ci des nag dañ koy def ba pare di ñaan suñu borom. mu may ñu ndam ci li nga xam ne ñu ngi koy sóobu asalaamualeykum ba seen prochaine incha allah.